dëgg gi feeñ na kon kaca war a bàyyi position ba mu nekkoon daal koy bàyyi loolu melokaanu ku gëm yàlla borom bi ne fa in tanaasatum fi shay'in farduuhu ila llahi wa rasul gis nga sart bi in kuntum tu'minun in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika xayrun wa ahsanu ta'wila condition la ci gëm yàlla pour nga bokk ci ñi gëm yàlla bu jooyoo amatee fokk ñu dellu ci yàlla ko bi yàlla waxul dellu leen feneen ila llahi wa rasul te mooy alkitab wa sunna ilallahi wa rasul foofu lañ foofu la ñuy dem lu mu ca wax rek loolu nee na loolaa gën fuuf zalika xayrun wa ahsanu ta'wila te moo gën a rafetit fu muy mujj dellu waxaat ne innama kaana xawla almuminin ida duu ila allahi wa rasulihi li yaxkuma baynahum an yaqulu samina wa atana wa ulayka humul muflihun nee na wax yi ñi gëm yàlla ku gëm yàlla nee na liy tontam soo ne ko lii la yàlla wax ci alquran lii la yonente bi sallallahu alayhi jàngale nee la mu cay teg sami'na wa ata'na dégg nañu ko topp nañu ko borom bi nee ñoo ñooy texe wa ulaika hum al muflihun waaye ña cay teg waaye ña cay teg waaye moom kon ñoo ñaay ñay texeet fukkee beeg ñeent taxaw na ci di digle lu baax di tere lu bon kooku itam dafa war képp ku gëm yàlla sa kem kàttan fa nga ca toll fa ca sa responsabilité toll bu ñu waxee nga naan bu ma doon borom xam-xam wala bu ma doon ilimaan wala bu ma doon nangam déedéet kenn ku ne fa sa responsabilité tàmbale sa biir kër tàmbale ci sa bopp sa ñi nga jaboote koñ bëgg a dëkk képp koo xam ne am nga baat ci moom nga di leen lu baax di leen teral bu dee koo xam ne amoo ci baatin nga laayee ko biir ca la nga xam ne moom nga jàpp ne mooy lu baax te defu ko wala la nga jàpp ne ab safaan la tem di ko def borom bi kat noonu la melale ñi gëm yàlla kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas lu leen may loolu ta'muruuna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar wa tu'minuuna billah gis nga tu'minuuna billah gëm gi ngeen gëm yàlla moo tax ngeen war di digle lu baax di tere lu bon ci ngeen di nekk ngeen ji xeet buñ nekk rek naan ñun xeet yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñooy ngeen ji xeet xeet wi dafa am melo boo xam ne bu ca taxawee ndax li tax mu nekk gën tekkiwul ne dañoo gën ña ca des ab juddu wala leneen mais ki gën mooy ki ëpp njariñ ki ëpp lu mën a servir waaw. xeetu yonente bi sallallahu alayhi wasallam lu ñuy servir nit ñi même ñi nekkul ci l'islam sax li leen xeet yonente bi sallallahu alayhi wasallam di jariñ ci li ñuy jàngale ci jàmm di ko tasaare ba même boo nekkul julli ci jariñu ca loolu yeneen xeet defalu ko doomu aadama yi ci des. yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika aful iman gis nga iman bi mu ci tudd nee na ku gis naka sudul noonu na ko faj na ko dindi ak loxoom bu ko mënee mooy kàttanam fu pouvoiram baatam su ko mënul làmmiñam wax ko yëgle ko ba ko ko mën a dindi yëg ko su ko mënul nag mu metti ko ci xolam te nee na boobu nag mooy bi gën a suufe ci ngëm yàlla adaful iman mooy ngëm gi gën a doyet kon nga gis ne kon digle lu baax gi ak tere lu bon bi melo la ci melokaani ku gëm yàlla ci la ñuy ngëm yàllaan di dëgëre ci lay woyof fukkeel beeg juróom ragal yàlla ci lu nëbb nag ak ci lu feeñ ci te mooy di def ay ndigalam ci boo wétlikoo ak boo wéetee di bàyyi ay tereem ci boo wétlikoo ak boo wéetee borom bi de yaa ayyuhal lazina aamanu ñi gëm yàlla waxal de ittaqullah xaqa tuqaatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun ey yéen ñi nga xam ne nee ngeen gëm ngeen yàlla kon war na ci yéen kon ngeen ragal yàlla dëgg dëggi ragal nag xaqa tuqaatihi te ngalawaay bu leen faatu bu leen dee dikkal lu dul fekk na ngeen nekk jullit dëgg comme jullit gi nag kenn ko ne am nga loo manqué ne foo toll da ngaa war di jéem a mottali ndax xamoo fa dee di dikk bu daal di doyloo rek fi nga bari na lool yu ñu jàngale ci lislaam yoo xam ne yow dafa góob ay naafila yu ñuy wax jàng alquran yu baax yoo xam ne dafa góob am na yu ñu tere itam yoo xam ne yaa ngi ci bay yëgoo lépp toujours war ngay def sa bilan kon di seet yu baax yi yi nga ci defagul nga koy jéem a yokk yi ñu tere yi nga ci bàyyeegul nga koy jéem a baax loolu mooy wal tansur nafsun maa qaddamat li xadin kenn ku nekk war ngay def évaluation sa mbir ba xam foo toll te xamal nga ko sa bopp loolu ci melokaanu ku gëm yàlla la du naagu rek daal de faax ne man li may def ci lu baax bari na daal di jàpp ne egg na fa war a yegg fukkee ba juróom-benn alxubbu fillah wal buxdu fillah bokk na ci melokaanu ku gëm yàlla ku muy bëgg yàllaay tax mu lay bëgg du caagi diw def maa defal nangam nangam rek da ngay dégg ñu ne diw de ku baax la ndax daf may defal nangam ak nangam ak nangam mel na yow kon yaay yaay tax a baax yaa doon koo xam ne daal ku la defal rek baax ku la defalul kon yaa yore mbaax yow yaa yore mbaax kon ku la defal baax nag ku la defalul baax ku la satisfaire daal kookoo baax waaw. tey loolu la ñuy nattee ko wax diw de ko baax la ñu diw de moo amul solo waaw la ko lu ko ñàkk solo mooy defalu ko waaw waaw mais yow yaa yore yow la yàlla daal defal procuration boo xam ne daal yaay baaxal yaay bonal bëgg da nga koy bëgg ngir yàlla bu tax gis nga bi loolu la tàggee woon waa Ansaar. wallazina tabawwa'u daara wal iman gis nga iman wala du ko may de min qablihim yuhibbuuna man haajara ilayhim wala yajiduuna fi sudurihim haajatan mimma uutu wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim qasaasa wa man yuuqa suhha nafsihi fa ulaa'ika humul muflihuun waa Ansaar ñi dëkk woon Madina bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaayee ak i saxaabaam ñu ñëw Madina jóge Makka bàyyi fa lu bari ci seeni alal ñu ko bëri amoon nañ alal waaye fa lañ ko bàyyi ndax jóge wuñ fa jógee sago am na ci yoo xam ne ba ne su ko yóbbu kon ñu ñëw nekk ay ñàkk moo tax ay moo tax borom ay fuqara la leen tuddee lil fuqara il muhajirin allasina uxrijoo min diyaarihim wa amwaalihim xam nga héberge ay fuqara métti la ñu bari nooraankat yi suñu bari seen rek ñun dëkk bi déexatul nooraankat yi ñoo ñëw waaw waaw doxandéem yi fi bari dëkk bi doxandéem yi fi bari dafa daan fi dëkk dëkk doxandéem la waaw waaye ku gëm yàlla moom du ko jàmbat man naa dalal nanga mi surga du ko jàmbat moom te saxaaba yi noonu lañ defoon ñoo dalal fuqara yooyu wata borom bi tagg leen boo dañ koy bëgg sax boo yuhibbuuna man haajara ilayhi ku gàddaay ñëw fi ñoom dañ lay bëgg te duñu am dara lu ñuy yëg ci seen biir xol ci li ñu la jox nga fii moom seen man nañoo joxe ba pare mais rek dañ cey teg di jàmbat yi moom da nga gis gan ñëw ñu ganale ko fonk lool waaye nag bu demee ku ñëwati ñu la man de yoruma dara li ma yoroon ganale naa ko gan bi yeewee naa ko gan bi gan ñi kay ñoo ma xaw a rey ci wéen wi jàmbar rek soxla boo problème boo am ci foofu la koy delloowaat ñee nag suñu borom daf leen tagg ci ne la ñu joxe amul ca dara lu leen naqar ci seen biir xol yemuñ ca sax dañuy joxe loo xam ne sax mooy lenn li ñu amoon ñoom liñ naroon a jariñoo ñoom muy benn dañ koy joxe te toog wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim qasas borom bi ne ku góor góorlu ba not sa layoog bakkan parce que doomu aadama bu ne dafa bëgg mais nag yaay xeex ak moom ba éliminer ko wa man boo xam ne lu jógee man sa bopp sama bopp laa ci loolu noonu lañ bindee doomu aadama waaye moom muy bëreeg moom nag ba lu ñëwati mu yéene ko moromam doomu aadama loolu effort la laaj effort laaj te mooy nga xam nga jariñoo ko lim lay jariñ ak nga jox keneen la nga cay am loolu mi ngi mel ni jiwu wi nga yëy ko am nga ji ko bu ci ab bu ci ab rendement nga ji ko nga yëy ko mu dem sa biir nga yëy nga bu gerte bi nga yëy ko ak nga dem ji ko nga may ko suuf si nga jox ko suuf si bis mu ko génneewaatee la nga cay am mu ëpp foofu. kon nag léegi lii sa morom aajowoo yow nga ko nga nga jëfandikoo ko nga jox ko ji ci moom parce que sa moroom mu ne fi mu soof la ci yow soof la sooy jéeg li nga ko jox da koo ji ci moom. boo gisee lislaam bëggul sax ngay jox nit di ko ci ñax naan ko budul woon ak man wala sax mu lay gërëm yenn gërëm yu metti bu gërëm dee am sax yow yaa ko waroon a gërëm yow yaa ko war a gërëm moom mi nangu nga ji ci moom xam nga suuf si ngay ji suuf si ngay dem di dogloo ko luy suuf ak mu ne nga dugg ci ngir am foo ko def waaw nit ki itam suuf la sooy ji moom itam tuyaaba yàlla mënoo ko am te jiwoo ko ci nit ñi ci nit ñi nga koy ji waaw moo tax kon borom bi ne woon wala tubtiloo sadaqaatikum bil manni wal aza bu leen yàq seenub sarax ci al mann mooy di ñax naan budul woon ak man doo am nanga wala di ko lor di ko teg loo xam ne li nga ko jox a tax nga di ko ko teg loolu boobaa la nga ca waroon am dootoo ko ca amati yonente gis nga àjjana kenn du fa dugg ci gëmoo waaye mu ne wala tu'minu hatta taxaabu du ngeen mën a gëm yàlla itam te soppante wu leen daal ne ala adullukum ala shay'in iza fa'altumuhu tahabbtum ndax du leen tegtal loo xam ne su ngeen ko defee soppante ñu ne ko axa kay mu ne afsu salaama baynakum tasaare leen jàmm tasaare leen nuyoo nuyoo nag jàmm la laal si li muy signifié dañoo bëgg ñu koy dund waxuñu ne kooku mu ne ko asalaamaaleykum borom bu dopp dugg këram yàq fa wala nga jël yëfam dem salaam bi nga waxoon kay kon du dëkk salaam nga def asalaamaaleykum sa jàmm yàlla nekk yow ba noppi def ko ay moom def ko musiba déedéet asalaamaaleykum bi ñuy waxante dañ ko war di jëfe mooy jàmm de maa ngi la koy ñaanal yàlla nekk ci yow kon li muy tekki mooy bu ma moomoon jàmm dama la koy dox comme yàlla moom jàmm nag maa ngi la koy ñaanal waaye lii xañ a jàmm moom du jógee ci man di ñëw ci yow waaw waaye boo nee nit asalaamaaleykum ba noppi yaa ngi koy jëw yaa ngi koy lor yaa ngay jël yëfam kon salaam boobu wér moo tax bi sallallahu alayhi wasallam ne siiwal leen jàmm ci seen diggante mu jëlee ci Anas mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li aqihi maa yuhibbu li nafsi kenn ci yéen gëmam du mat li fekk bëggalul mbokkam li bëggal boppam kon yéene sa mbokkub jullit li nga yéene sa bopp bañ koo ambal ay ci ngëm yàlla la bokk de saa boo ambalee sa mbokkum jullit aw ay rek na nga yëg ni sa gëm yàllaa ngi wàññi ndax koo xas ambal aw ay da koy yéene musiba lu ko dal ci musiba sa xol da ciy xaw a sedd mën ngay wax si kam ne naka yërëm naa ko mais sa xol da ngay xaw a kontaan comme da nga koo een dafa am lu la naqari ci moom boo déggee ci moom xéewal it da lay naqari in tamsaskum xasanatun tasukhum wa in tusibkum sayiatun yafraxu biha nee na bu ngeen amee lu baax ñu mën a leen bu ngeen amee euh, musiba ñu bëgg ci bu ngeen amee musiba ñu bëgg ci moo tax ñuy ñaan yàlla yàlla boo def ci sunu xol ak coxor ak mbañeel ci ku gëm yàlla wala tajal fi xulubina xillan lillazina amanu kooku bokk na ci ñaan yi ñuy ñaan wala tajal yàlla boo def fi xulubina ci suñu xol yi xillan mbañeel coxarte lillazina amanu jëm ci ku gëm yàlla ndax boo ko xasee def rek yow itam sa gëm yàlla wàññi ko kon loolu itam koy bëgg nga bëgg te nag li koy waral mooy nit ñi boo leen toppee ci seen melokaan boobu da nga leen bañ mais soo koy bañ bañ ko ci yàlla soo ko bañee ci yàlla nag yow léegi bañatoo ko ngir sa melo bopp dëng gim dëng ma ngay moy yàlla ba ngay def lu yàlla tere te nangu ko ba loola tax nga bañ ko ndax yàlla bañ na ko nga ànd yàlla bañ ko yàlla nga àndal ca loola yàlla ku defatul lu baax rek nekk top soppe laa yuhibbul fasidin laa yuhibbul mufsidin laa yuhibbul fasiqin waaye bañoo ko ngir sa intérêt bopp waaye su fekkee nag say intérêt ngay bañ a moom kooku moom ko daga bañ nit te fekk ne jërul woon a bañ ndax doomu adama dafa tële même na laa yéene lu mu bëggoon a def te defu ko nga ne daa bañ daa koy bëgg a bañ mën naa fàtte mën naa jóom mën naa ñàkk xam yooyu yëpp dafa ànd ak doomu aadama am na lu mu la waroon a defal fàtte na ko am na waroon lu mu la waroon defal moom da koo xamul am na lu la waroon defal dafa jóom ba defu ko yooyu yëpp a ngi ci moo tax soo dee natt say intérêt moo relation yi dox sa diggante nit ñi koy jàpp intérêt nga koy jàppe koy bàyyi moom nga koy bàyyee da nga bañ nit koo xam ne li nga ko bañee wala su ko cee bañ waaw ndax même su fekkoon ne moo tay sax joxu la ko sax waroo ko cee ba ndax da ngay jàpp ne yàlla la ko joxul ndax moom li lim lay jox yàllaa koy jaarale ci moom rek muy ñëw ci yow lu mu la ko yéene yéene yéene te yàlla tàggatul xol bi mu war la koo jox li muy tekki mooy yàllaa la joxul loola moom bi la ko yéene woon yàlla wëlbati xol ba ba joxula kon boobaa bu ko xas jàppal ne loola dalul sa wërsëg ndax ku gëm yàlla noonu lay jàppe waaye lu ma waay joxul rek moo ko tey moo ma xañ loolu déedéet yàllaa la ko xañ maa yaftaxi llaahu linnaasi min rahmatin fala mumsika laha waaye wa maa yumsik falaa mursila lahu min ba'di wa huwa al-'azizul hakim loolu boo foofu boo fi asee ne yàlla lu mu la ubbil ci bunti yërmande nee na kenn mënu koo tëj waaye lu mu la tëjal ci bunti yërmande kenn mënu koo ubbi waaw kon nag lu la waaye yéene yéene yërmande ji te yàlla tëj na bunt bi fu muy daal du ubbi ko kon nag boo ko ca meree moom ba noonu ko ca ah sëñ bi yàlla duutu ko tëj fukkeelu melo beeg juróom-ñaar mooy nag bañ a ragal ku dul yàlla innama dalikum sheytaanu yuxawifu awliyaa fala taxaafuuhum wa xaafuuni in kuntum muminin dégg nga sart bi de in kuntum muminin mooy condition bi de ndéeg gëm ngeen yàlla nee na mboolem yi ngeen di dégg ñu lay ragalloo jibar ba lay tëkkoog kay woote ne daa am tur ci yàlla daraja ba lay tëkkoog nee na loolu lépp seytaane la innama dalikum sheytaan yuxawifu awliyaahu nee na seytaane dong nga day tiital ñi farak moom waaye falaa taxaafuuhum bu leen leen ragal waxaafuuni ragal leen ma man yàlla in kuntum mu'minin bu fekkee gën ngeen yàlla foofu soo fi nekkee ku lay tëkkoo ku ne tibb naa sa tànk dinaa la def nangam nangam ak yooyu yëpp bu ko faale fi ne bari na ñoo xam ne loolu la ñuy xoqatale nit ñi fi mu nekk dañuy xoqatale waaye nag soo gëmee yàlla rek yàlla moo lay défendre inna allaha yudaafi'u anil lazina amanu yàlla mooy dox sa digganteeg ñoom fukk ba juróom-ñett bañ di lor jullit ñi nag ci tuur seen deret wala jël seen alal ci naka sudul noona wala di yàq seenu der borom bi daf ne wala yaqtuluuna nafsa allati harrama allahu illa bil haqq wala yasnuun wa man yafal dalika yalqa adaba bi muy wax melokaani jaamam yu baax yi ñu sifaatu ibadu rahman dafa wax ne ñoom du ñu rey bu yàlla araamal ko ko ci anam bu mu mën a doon du njaaloo ndax kat ko def yooyu da nga dajeeg bakkan borom bi dana wax ne laa taakulu amwaalakum baynakum bil baatil bu leen di lekkante seeni alal ci neen moo xam ci anam gu mën a doon ci nax ci commerce ci lu mën a doon nga nax nit ki ba lekk alalam loolu borom bi nee na bu leen ko def ñu jëlee ci Abdullah ibn Amr yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne la zawaalu dunya ahwanu ala allahi min qatli rajulin muslim nee na tukki dal àdduna moo gën a woyof ci yàlla ci rey ab julit rey ab julit na fa suñu borom rëyaay boo xam ne nee na àdduna ju tukki sàkk bu gën a woyof yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne kullul muslimi alal muslimi xaraam damuhu wa maaluhu wa irdu léppi julit araam na ci moroomu julitam deretam araam na mu tuur ko araam na mu jël ko ci lu du ab deram araam na mu di ko yàq fukk juróom-ñeent maandu nag ci seede maandu ci seede ak ci atte borom bi ne yaa ayyuhal lazina amanu ñi gëm yàlla lay adressé de yaa ayyuhal lazina amanu koonu qawwaamiina bil ñoo xam ci digg bi rek la ñuy faral kenn suhadaa lillah ndax li ñuy témoyé di ko seede di ko atte yàlla rek kay tax walaw ala anfusikum gis nga sa bopp la tàmbale doon de mbir mi ci sa bopp la dal am nga ci wolof da ngay dégg ku naan euh, diw ma ci moom seede mais ku mat seede ci sa bopp mën nga seede ci sa bopp sax mën nga ci seede walaw ala anfusikum awil walidayni wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabihu alhawa an taadilu wa in talwu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna xabira nee na sooy doxal dëgg tàmbaleel ci sa bopp bu dalee ci say wayjur dalal ko ci sa kami wayjur nee na sama wayjur yii ñu nekkul ci dëgg buñ nekkee ci dëgg it nga dox leen ak ay jegeñaale ku am ak ku ñàkkee bu mu ci feeñ ci doxal dëgg ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na li alak xeet yi leen fi jiitul mooy li ñu de impinité mooy ku am baat ku am daraja su tooñee dara du ko ci fekk ku néew doole nag moom su tooñee ñu def ko sax ba def ko loo xam ne ëpp na loolu mi ngi waxoon ci ñu benn jigéen bu bokk ci giir gu ñuy tudde al maxsumiya da doon famille bu bu bu fort ci ci aada am xale jigéen lu ca sàcc yonente bi sallallahu alayhi wasallam yëpp koo war a dagg loxoom ñu ne ah ñii famille bii de buñ daggee loxob seen doom dana doon gàcce bu rëy ci ñoom nañu ñaan intervention ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne nañ dem ci Usaama mi nga xam ne moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf koo sopp comme ni mu soppee woon bàyyam ñëw wax ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam yonente dafa mer ne ko fa atasfa'u fi haddin min hududillahi ya Usaama yow Usaama da ngay tinu da ngay def intervention ci loo xam ne peen la boo xam ne yàlla moo ko tege daal ko maa ngi lay giñal ne Fatima bintu Muhammad bu sàccoon Muhammad dagg loxo parce que kooku mooy maandute loolu mooy walaw ala anfusikum awil walidayni wal aqrabin parce que loolu su xasee am rek gis nga mu ne fala tattabiul hawa an taadilu bu leen topp bànneex ba mu téelee ne maando bu leen topp bànneex ba mu téelee ne maando gis nga kon si si dëgg ci lislaam la am yemale ñëpp ci kanamu yoon ñaar fukkeelu melo bi nag mooy di muñ nag nattu ak lor buñ la loree ci yoonu yàlla lool joo xam ne diine tax ñu teg la parce que l'islam ku ci ne léeg-léeg nga am lor joo xam ne ñu la sonal lool ñàkk ci sa alal génn nooroo ba yàq say intérêt fexe bañ dàq la fa nga doon liggéey léeg-léeg sax ñu fexe ba tas sa soxna wala bu dee jigéen ñi ñu tas ko ci sëyam yàqal la sa liggéey te lépp yàlla rek a tax loolu da ko war a muñ te sante ko yàlla garab bu rëy te borom bi nag fokk nag yéen ñi gëm yàlla dama leen di nattu wala nabluwannakum bi shay'in min al xawf wal juu wa naqsin min al amwal wal anfus wa samarat wa bashir sabirin wala nabluwannakum kum jooju ñi gëm yàlla lay waxal danaa leen nattu ragal dana am xiif dana am alal ju manqué dana am sa liggéey léeg mu am problème ay bakkan njaboot gi léeg am ñu ci wàññiku meññet mi léeg-léeg du ñor na war a mere ñore borom bi ne bégalal ñii muñ wa bassiri sabirin mooy ñan alladina ida asaabathum musiba qaalu inna lillah wa inna ilayhi rajiun ñi nga xam ne su leen musiba dalee ñu ne ñun de yàllaanu moom yàllaanu moom ji day tekki ne kon lii yàlla def ci ñun moom sañ na ko ah ndax tam yaa ngi jàpp léegi sam xar di bëgg a rendi bu ñu la waxee da nga naan li ngay wax rek mooy sam xar maa ko moom maa ko moom rek nga koy layale waaw xar xar mi ngay rendi rek ne maa moom waaw ah, te kan moom gi wérut ndax yow xar nit defaroo ko bindoo ko ñax mi mu doon lekk defaroo ko ngelaw li mu doon noyyi defaroo ko ndox mi mu doon naan defaroo ko te ne maa moom xar bi dama koy ren waaw la mi nga xam ne yow moo la bindee li moo ko ñoral li ngay moo ko fi ngelaw li ngay noyyi moo la ko jox waaw kon suñu def li mu bëgg def nga def ko jàmbat da ngaa lu tax yàlla def ba lii ah loolu tax nga def xar nga loolu ah loolu moo tax inna laaj loolu lay tekki yàllaa nu moom boo ne yàllaa nu moom rek kon lu def ci ñun rek sañ na ndax moo nu moom moo nu moom te sax jënd lu moom daf loo defar te itam defar nga ba mu ko def bàyyiwul moo nu yor moo nu yor boole ci mosul defaroon sax bàyyi na aywa dem nañ lori seen bopp wuti leen lu ngeen lekk waaye li ñuy lekk sax moo ko fi indi kulu min tayyibaati maa rasaqnaakum rasaqnaakum moo leen ko war a sëgal afara'aytumul maa'a allazii tashrabuun a antum anzaltumuuhu minal musni am nahnul munziluun xanaa gisu leen ndox mi ngeen di naan fi mu ne yi ñu lekk amul kenn ku ko mën a fabriqué ndox kenn mënu ko defar. usine buy defar ndox déedéet fabriquer ndox ndox amul woon nga fabriquer ba ndox am déedéet lu ñuy lekk nga fabriquer ba dugub am wala ceeb am wala leneen am déedéet moom koy transformer ngay def transformation sax lañ koy tuddee da koy transformer waaye fabriquer ko moom am moo tax lim ne woon wa fi samaa'i rizqukum asamaan see leen yore li technologie bi avancé avancé ba léegi looloo fi ne lowaa boobu du soppi yàlla ay am du soppi doomu aadama yi demuñu ba egg foo xam ne ñaan yàlla na léegi mën ngaa bàyyi say tawak say yëpp daal mën nga ko bàyyi léegi mën na noo dem léegi mën na noo dem déedéet ba ca président ba ca biir palais ba lu lu ñor lu ñoro ci gàncax wala mu jógee ci mala la mën a tudde waaw moo tax kuy xeeb baykat baykat mooy koo xam ne ñëppay consommer li ñuy liggéey wala nappkat wala sàmmkat ñooñu ñett yooyu ñuy wax xam ne ñoom lañ gën a wa néewal doole ci réew mi te ñoom bis bu set nga koo consommer li ñuy liggéey bis bu set nga consommer ko ba ca président ba dana consommer la nappkat ba nag wala la sàmmkat ba sàmm wala la baykat ba bay ñett yi rek a yor mbiri moo tax réew mën a gën a fonk yooyu mën a gën a avancé waaye fii ku ñu ne baykat laa ñu ne kon baa doola la bu ñu ne nappkat laa ne baa doola la bu dee sàmmkat laa rek taxul ñuy wax kon mooy mooy baa doola waaye fonctionnaire ba tiimi mën a kookaa kawe ay këyit mën naa reggal nit ah ay këyit mën da ci wa wàcc fa këyit yi tiim bool di lekk bool bu te bool ba nappkat ba wala baykat ba moo ko defar ba noppi nga ne ñooñu ñooy baa doola yi tekkiwuñu dara ah de yow kon yamal ci say kayit yow itam ak say mbir rek waaw <laughs> bàyyi seen yëf ñoom bàyyi leen seen yëf bàyyi leen la ñu napp bàyyi leen la ñu sàmm bàyyi leen la ñu bay ba xam na nga demam déet waaw. loolu ku la ko gën fonk gisee réew yi gën a développé ñett yooyu lañ gën a fonk léegi yooyu soo fa nee napp baykat laa wala sàmmkat laa wala nappkat laa dañ lay xoolaat ci kaw waaw ndax ñooñu xam nañ ne ñooñu ñoo jooy réew bis bu set nga consommé li ñuy def ñii ne ñi des li ñuy liggéey da nga toog ba yàgg doo ko soxla da nga toog lu yàgg doo ko soxla mais ki nga xam ne bis bu set waxuma sax nga soxla ko benn yoon ci mais ay yoon nga koy soxla ci bis bi ndax da nga ci ndékki añ ci rees ci <laughs> kooku kooku <laughs> bis bi ci li muy liggéey moom ah yow sa kayit bi moom nit dana toog at ba at ñaari at sax du ko soxla du soxla sa signature boobu te nga ne yaa ko gën <laughs> yaa ko ëpp daraja ci réew mi yaa ko ëpp looy fayu ah, ah mais loolu loolu loolu tooñ la tooñ dëgg la ñàkk a maandu la juutal yëf yi la dañ ko juutal euh, ñaar fukkeelu melokaan beeg benn wattandiku nag jëflante riba ci wàllu alal ak nag di xër ci fàggu lu lew borom bi ne yaa ayyuhal lazina amanu ba tey amanu lay adressé yéen ñi gëm laa taakulu riba adaafan mudaafa wattaqullah laallakum tuflihun yéen ñi gëm yàlla bu leen lekk riba da koo ñu koy fula ka fula muy ay compte yoo xam ne ñu la cay tegal di la ca tegal rek adaafan mudaafa waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne la ana waaw alqama nett li ne yonent bi sallallahu alayhi wa na moom rëbb na aakila riba wa muukilahu kiy lekk riba ak ki koy lekkaloo yow bi permettre nit ki mu mën koo lekk kooku yonent bi rëbb na ko mu ne wakkaati bay wakkaati ba hu wa shahidayhi ak ka koy bind ak ña koy teewee melo ñaar fukkeel ba ak ñaar mooy nag ba a yàq sa sarax sa lu baax li nga def ki di ca gis sa bopp di ñax ki nga ko defal yaa si ne amanu ba tey ñoom lay adressé rek yaa ayyuha llazina amanu laa tubtilu mahrum la ñàkk na mais ne yàlla defal na ko sutura defal na ko orma boo xam ne du ma ne buñ ko tuddee agréé déedéet léeg-léeg ak ñëwam sax du ko wàññi dara mais diina ji lay wàññi dara ndax koo xam ne fi mu placé ci l'islam borom xam-xam la boo xam ne moo fiy jàngale mooy imam bi mais téewul nag ku ñàkk la bu ñu nee fa ñuy joxee di rang ca kanamu caméra yaak yooyu fa la imaam war a dem rang moom itam ñu jox ko respect bi mu amoon ak wegeel gi amoon yëpp bu ci bari dana wàññi ko ci bëti nit ñi bu boobaa. moo tax war nañoo am geneen anam bu ñu ko joxee moom lañ koy jox te buñ ko ci santaas ci ne fokk na ñëw ci kanamu mbooloo mi bindu rang ñëpp gis ko ñu jox ko déedéet. kooku mooy almahrum moom la borom bi tabaaraka wa taala di wax nee na ñi nga xam ne uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yaxsabuhumul jaahilu agniyaa min at-ta'affuf taarifuhum bi siimaahum laa yasaluuna naasa ilhaafa nee na am na ñoo xam ne fa ñu toog bu mënuñoo wuti lislaam a leen fa téye am koo xam ne mënut a déplacé wu ndax fi mu toog li muy jàngale li muy jiite ci jàkka ji dañ ko soxla ci lislaam jullee néew yi bu demee ñu koy xaar moo war a jullee si néew bi moo war a def nangam ba mu far toog ngir lislaam a ko téye uxsiru fi sabilillah laa yastatiuuna darban fil ard nee na mënuñoo tukki mënuñoo tukki waaw te nee na ne fegu gu ñu fegu ak muñ gu ñuy muñ tax na ba ku leen xamul da ngay def rek dañoo wooba léegi iliman boobu fa daan loolu dépasse waaye nit dafay jaar di ko leb bootul ay cinquante mille ak i bi mille ak iliman bëggul nga lebal ma fi sànni waaw ndax rek sag bi rek ak sutura seeg fegu gi rek yaxsabuhumul jaahilu aghniyaa min sa taaffuf laa yas'aluuna an-naasa ilhaafa nee na du ñu laaj kenn di leen gundu ko tal ñooñu nag société bu ñu nekk dañu leen a war a xam di leen fekk fañ na di leen jox ci sutura te joxe gi ci sutura sax yow mi koy joxe yow la gën ci yow ndax borom mi daf ne in tubdu sadaqaati fa ni'ma hiya waaye wa in tuxfuuha wa tu'tuuha al fuqara fa huwa xayrun lakum nee na bu ngeen feeñalee sarax bi nee na baax na sarax itam léeg-léeg nga feeñal ko joxe ko publiquement baax na ndax ñi mel na mën a joxe te daawuñu joxe man laa roy ndax am na ñoo xam ne bala ñoo joxe rek dañoo gis ko joxe waaw waaye nee na soo ko nëbboon de jox ko fàqir yi kenn bañ ko yëg nee na yow moo gën ci yow feeñal gi moom ci faqiir bi la gën ndax moom mu man cee am ñeneen boo gisee sax yalwaankat yu bari fi mu ne bu ñuy yalwaan bu ñu lal seen euh, mbalaanum kese rek il faut ñu abu wecca def ci teg ci kon di la wan ne kat yëf yi tàmbali na gaa yi tàmbali nañoo sarte waaw xam nga mbalaanum kese yalwaan bu toog amagul dara moom laal bosaaru kese ku romb da jàll kii kenn sa def ko xaaral ba jàll waaye day àggu wecca doonte da koy leb sax dana toj ñaar fukki doon tasaare ci kaw seen bi dëkk donc toog ko tim nag di yalwaan di la wan ne am na ñu jot a sarte ñoom ba doon kon kooku bëgg na bëgg nañu ñu gis fu ñu koy saraxe waaw bëgg nañu gis fu ñu koy saraxe waaye nag li gën ci yow moom nee na nga joxe ko ci sutura ndax sarka dafa mel ne am tooba mooy ji am tooba xam nga lu mu gën a nekk kump ku fekkiwuloon fañ koy ji waratu koo xam waaye soo jiyee am tooba te ku ñëw nga solli ko ko fii kat lii laa fi ji bu demee nga soxla ku ñëwaat nga solliwaat fii de lii laa fi ji waaw kañ lay sax <laughs> du sax mooy ñoo xam ne lu ñu def dañuy bëgg ku ko wax li ma def wax leen ko buñ koy wax ñu ngi koy solli tool bi ma ma ji sunu leen ko wax leen ko wax leen li ma fi ji doo bu sax moom kon loolu itam mat naa bàyyi xel bu baax mooy bañ a yàq li ngay joxe ci bëgg ko fésal yàlla moom bu ko gisee rek doy na sëkk alam yaalam bi anna allaha yara waaw xanaa xamuñu ne yàlla ngi gis te borom bi nee na ñii joxe te ngistal rek lañ ci jublu gis nga ni mu ko misaale fa masaluhu ka masali safwaanin alayhi turaabun fa asaabahu waabilun fa tarakahu saldan laa yaqdiruuna ala shay'in mimmaa kasab nee na misaal bi mi ngi mel ne nee na doj wudde ca kaw ratax ban nan nga def ca suuf nee taw ba fekk ko fa taw ba bu fekkee suuf wudde ci kaw doj mu ratax ndax suuf soosu dara dana fa desati dara nee kii joxe itam nag te njistal nit ñi wax ko nit ñi wax dégg ko rek a tax nee na kooku noonu la mel ñaar fukkeelu melo bi ak ñett mooy nag di bari lu ñu tudd yàlla tudd yàlla ñu ko waxee ëmb na lépp loo xam ne ak jaamu yàlla la la ca jiitu mooy jàng alquran di jéggalu suñu borom tabaraka wa taala di ñaan di julli ci yonente bi alayhi salaatu lépp loo ciy def nag di ko dëppale ak sunna bul ci fental sa bopp dara bul ci fent ay lim ay dog ñu naan joxeel dog yow sañoo dog yow moomoo mbir mi ba di ko dog joxeel dog déedéet lenn lu ne nga ca yem xam nga léeg-léeg ñu julli ba noppi ñu naan joxeel ñaan foofu yonent bi joxe na ñaan ba pare xanaa mën nga nag fàttalil ñaan fàttalil ñaan yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxe waaye imaam joxe na imaam foofu joxe ñaan joxe yonent bi joxe na ñaan soo sëlmalee waxal li waxal li li ci wax li wax na ko ba noppi joxe na ñaan wax leen subhanallah walhamdulillah wala lu benn fanweeri yoon ak ñett ah ayat la ko suy jàngaleen leen fàlla xëy naa si liñ fi jàng lépp al askar al waarida ba'da salaaka yi ñu jàng xam nañ ko kooku yoon dafa joxe na ko ba pare mën nañ ne iliman nag fàttali ko léeg-léeg mu fàttaliwaat ko nit ñi fàttali li li yonente bi jàngale moom lañ war a wax fàttali ko waaye iliman di andi ñaari boppam naan leen nangam ak jàng leen nangam yoon ñaar mel na moom moom moom moom dafa am droit fii bu mu am iliman bu ne asalaamaaleykum tàggoo naa nit ñi allahu akbar ak asalaamaaleykum moo ko booleeg nit ñi bu ne allahu akbar daal nit ñi ci gannaawam la ñu topp bu sëggee ñu sëgg bu sëggee ñu mais bu dee asalaamaaleykum nag pare nañ nit ñi rek léegi kenn ku ne léegi la la yonent sa ñaan yaa koy defal sa bopp waaw waaye iliman nag nekkul di jiite nit ñi ci ñaan ba tey jiite julli lañ lay jiitaloo mais jiitalu wuñ la ak ñaan waaw ak ñaan moom déedéet ñaan boo dee salaamaaleykum jeex na ñaan yi ku ne koy defal boppam ajowul iliman moom kooku mbirum individuel te yonent bi wax na kenn ku ne la nga war a def léeg-léeg nag na ko fàttali du toujours nag du toujours mais léeg-léeg mën na koo fàttali ab dars lay doon rek da tey kat damay fàttali ñaan yi nga xam ne moom lañu war a def gannaaw buñ jullee jullit farata ba pare dal koy lenn leen wax ko wax xadis ba mu tege fàttali ko nit ñe ne dee leen ko def waaye du bis mu set sax kon tudd yàlla googu borom bi moo ne yaa ayyuha lasina amanu uskurullaha zikran kasira yaa ayyuha lasina amanu day wax ba tey comme boo kenn ko naan di yéem loola ak di jënd journal boobu moo tax borom bi noonu yaa ayyuha lasina amanu in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahaala fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin yéen ñi gëm yàlla koo xam ne dana def ay ndëngte ku te kuy fet fet moom moo jiitu ci faase koo xam ne mën ngaa wax lu dul dëgg rek kooku faase na kooku nag bu la andilee am xibaar borom bi nee na na nga wóorliku na nga vérifier ba mu leer mais bu dul loolu kat da nga dal ci kaw nit teg ko ci réer gannaaw bëgg di ko rëcc dem ba accuser nit dara ne cam deram di xas wala tax sax nga la nga ne moom nga ko te fekk na xibaar la buñ la jot rek tëbal kooku itam di wérli ko ay xibaar lu baax la borom bi dañ wax ne wattandiku leen lu bari ci ay njort ijtanibu kathiran min az-zann inda ba'da az-zann ism teg ca wala tajassasu bu leen di espionné wu di luñutoon te ay secret nit la muy nëbbu nga di ko jéem a xam te jamono ji dafa bari lool nit di wax fekk yaa ngi koy enregistré ci sa portable wala yaa ngi koy photo ba lépp a ngi am jumtukaay yi dafa gën a bari léegi yoo war a mën a tuxale xibaar yi nit wala déglu nit lu muy wax loo xam ne sa yoon ci te wax léeg-léeg soo xamul tàmbali ba ak la ca topp bu koy am loo jël ci digg ba rek mën ngaa jàpp ne wax ji ñaaw ne fekk lu rafet la yaa xamul la ko jiitu ak la ca topp wax bala nga koo mën a da ngay peeg lépp waaw da ngay peeg lépp xam fi mu tàmbalee ba fi mu yem ak ko ko tax di wax ban contexte ci la ko wax ak ku muy waxal waaw te léegi nga dégg wax boo xam ne itam soo xamoon la tax ñu ko wax kon da nga xam ne jaadu na lu waxu la waaye jékki-jékki rek di wax na lu garaaw rek wax ja sax digg ba da nga koy dindi la ca njëlbeen nga da koy dindi mujj nga dindi ko tànn la ca garaw rek daal koy jot su ko defee loolu itam lu mat a waytu di ko la ci ku gëm yàlla ñaar fukkeel beeg juróom-benn bàyyi nag di reetaan ak a xeebaate te mooy naw li nga am te keneen amu ko nga jàpp ne gëne nga ko ko kooku du melokaanu jul borom bi ba tey adressé yaa yona si ne amano laa yasxar xawmun min xawmin mooy mokke mooy reetaan na mu mel wala làkk ba muy làkk wala kuróoru yaram wa wala la mu am ci alal na mu néewee nee na kat asa an yakuunu xayran minhum de ñooñu ngeen di doyee dal mën naa am ñu leen gën wala nisaa'un min nisaa asa an yakunna xayran minhum wala talmisu anfusakum wala tanabasu bil alqab bisa lismul fusuqu ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humu zalimun ay yi suñu borom ma ko andi ci bi mu ne innamal mu'minuna ixwa ñi gëm yàlla ay bokk lañu ne fa aslihu bayna axawaykum defar leen bokk bi mais li ñuy defaree bokk yëpp yu négatif la du looy def mais looy bàyyi la looy bàyyi la parce que bokk googu pièce de temps amu fi bu yàqoo kenn mënu ko réparer law anfaqta maa fil ardi jami'an maa allafta bayna quluubihim boole ay xol borom bi nee na li ci kaw suuf lépp soo ko dépassé woon mënu leen a ay xol lu kenn mënu nag yàlla def ko ba pare nag ne leen nag bu leen ko yàq defar leen ko defar nga mooy bu ko yàq waaw ñu mel ne oto boo xam ne benn pièce bu taasif amu fi rek li ngay def mooy fexeel ba ba mu paan kon waaw entretien bi mooy fexeel ba ba mu paan kon de ndax bu paanee moom kenn mënu ko réparé mbokkoo gi itam kenn koo defar yàlla rek moo ko mën a defar walakin allaha allafa bayna qulubi man ngaa boole mbooloo mais boole xol moom yàlla nee na moom rek boo def boo dépensé woon li ci kaw suuf lépp ba koo neexale ak nit ñi am na ci ay mbootaay yu bari ñi ay daayira ñi ay association ñi ay tarixa borom bi nag soo leen séenee da ngay defee ne benn lañ taxsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta waaw da ngay defee ne benn lañ mais xool ya kenn ku ne ngay fexeel morom bu ñu te ña ngay kaay ma gis la ja kaay ma gis la ja bari lool te kenn ku ne ca morom ma lay wax kat ki ñu wax membre la kenn ku ne fexeel morom ma ci biir mbooloo bi teñ na ne benn lañ kon bàyyi reetaane yooyu moo tax borom yi yàqu mbokk yëpp la tudd foofu yi mu tudd fii laa yasxar qawmun min qawmin ba ca walaa yaxtab baadukum baada bu leen jëwanti waaw bu leen xeebante bu leen ñaawante njort yooyu yëpp suñu ko moytoo bokk gi day daal di dëggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne xasbu min as-sarri an yaxqira aqaakul muslim doy na nit ki ak mbon mu xeeb mbokkum jullitam nee na doy na sëkk ak mbon ñaar fukki ak juróom-ñaar mooy nag ñoŋal saw làmmiñ ci wax ju rafetut del wax wax ju rafet waxoolu linnaasi xusnan yaa ayyuha allazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan wax ju jub ju rafet yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nit dana wax genn kàddu goo xam ne jàpp ne nag woyof la mi ngi koy xalab ci biir safara da ko juróom-ñaar fukki at inna rajula la yatakallam bil kalima la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina xalifan fi nnaar genn kàddu goo xam ne ñàkk ko solo wax ko ci nit mi ngi lay xalab ci biir xóotaayu safara da ko juróom benn lii wax ko moo gën bañ koo wax wala wax ko bañ ko wax ñooyam wala bañ ko wax moo gën wax ko soo gisee nag wax koo gën bañ koo wax nag waxal ñaar fukkeel beeg juróom-ñett mooy nag sori lépp loo xam ne ak mooy la sàngara carte njaaloo sàcc yooyu yëpp du melokaan yi ku gëm yàlla suñ borom yaa yónni si ne amano innama al xamru wal maysiru wal ansaabu wal aslaam rijsun min amali seytaan fajtanibuhu la'allakum tuflihun sàngara ak carte ak moo dem xeeti carte yi nag xam ngeen ne carte léegi ni mu bëree ci biir société islamique foo xam ne jullit dafa ne ñu ubbi ay kees ci pays bi daanaka mel ne dañoo dem ba daganal ko sax ndax mbir araam nga di ko def sax loolu bàkkaar la waaye soo eggee ci daganal ko rek jàpp ne araamatul wala nëbbatoo ko loolu nag mën naa egg sax ba génn na ci biir diine ci te da ngay gis ay mu kàllaf yoo xam ne ña ca kees ci PME yokk yor programme bi lii da gis benn loo xam ne sax kurus lañ ciy téye léeg boole kurus gi ak ak programme bi di xam nga kooku kooku jàpp na ne li muy def ayib ndax bu dee sàggara sax moom ña ngay làkkatu moom doo gis ku yor kurus ak butéelu sàggara moom doo ko gis fokk ñu làkk moom. te kat moom ñoom ñaar ñoo bokk fu ñu leen tuddee programme bu PMU boobu ak sàngara innamal xamru wal maysir ñoo sa sow xamru wal maysir lu tax xamru bi sàngara bi moom li may woo ko téye ci mbedd mi te maysir bi carte gi moom nga demee ko téye ci mbedd mi kon da ngaa jafe la dagan na kon loolu itam mat naa mooy bu baax borom bi nee na rijsun min amali seytaan fajtani boo xam ne àllakum tuflihun bu dee ca njaaloo borom bi xool bala tàmbalee qul lil mu'minina yaquddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaxdudna min absarihin waxal jullit ñi gëm yàlla dañuy damm seenu gis gis ak xool bokkut kii doo ko ñëw moom foog nga gis ko waaye soo siggi waxee rek yaa ko xool nag waaw jigéen ji doog a egsi bu dee salaamaaleykum foog nga gis ko da koo gis gis ak xool boobu da koo gis kooku ma may nañ la ko waaye soo toogee ba yàgg nag nga externe bëgg a xool am na looy seet xool moom am na looy seet am na loo bëgg a gis kooku nag lañ la tere <laughs> kooku lañ la tere leen koo foofu la foofu foofu la mbir mbir bay tàmbalee moo tax waa ji rek kullul xawaadisi mabdaaha min an nazari fa mus fa musamu naari min mustasqari sabari nee na musiba yoo gis ci xool la tàmbale mu ne daay goo gis mu lakk ci ferñe aw ferñeent ko taal daay goo gis mu jeexali dëkk ki ay tool ferñeentu tuutee ko tax ñaar fukkeel beeg juróom ñeent mooy nag yar ak njaboot comme dafa bokk ci melokaanu gën yàlla mais di jur rek di bàyyi noonu sa yoon nekkul seen njaboot déedéet yaa ayyuhal lazina aamanu quu anfusakum wa ahliikum yàlla fegal leen seen bopp ak seen njaboot safara kon taxawu sa njaboot ni ngay ñu xiif ni ngay ñu mar ni ngay ñu rafle bu ñu feebaree nga faj leen noonu nga war a gën a góorgóorloo nag ci ñu bañ a tàbbi safar ñu bañ a tàbbi safar kooku mooy li gën a rëy ci jaboot léegi de ko wax dañ koy tagg rek ko man jaboot la jabootam day duñu xiif duñu mar duñu rafle mais teg na leen ci yoon woo xam bu ñu ko bàyyiwul safara lañ jëm jënd na télévision boo xam ne boo rëy rëy la andi na ay vidéo ay CD abonné leen internet lépp loo xam ne musiba la mu xew ci adduna bi ci adduna bi ñu man ko ko ci biir këram ba noppi nag añ baag reer baag dara du manqué nag ñu ne kooku mën na njaboot déedéet kooku njaboot première man njaboot mooy fegal leen sa borom koo an fasakum wa ahlikum kooku la mooy kenn wax naan euh, ku ñu takk ay loxoom ba mu tooy ba mu dëgër sànni ko ci biir géej ba noppi ne bul tooy nag bul tooy mooy lépp lu yàq nga indi ko ci sa kër ba noppi ne njaboot na ngeen baax waaw seen salu bu leen bon te lépp luy bon nga andi nga ko ci kër gi ba noppi ne bu ngeen mooy ki nga sànni ci géej gi ba noppi ne ko bul tooy ñooy melokaan bi nag mooy dëggu ci say wax dëgg ci sa melokaan yaa ayyuha allazina amanu taqullah wa kunu ma gëm yàlla ragal leen yàlla te ngeen bokk ci ñu dëggu ñi kon ab jullit dafa war a dëgg ci ay waxam waaye dëggu yi ci melokaan fanweer beeg benn te mooy bi ci mujj dama lenn la rek ci melokaan yi waaye melokaan yi bari na lool ñu dana wax ne dañ ca jukki rek li xaj ci waxtu wi mooy nag di dundal jàkka innama yaamuru masajidallah kan man amana billahi wal yawmil akhir kii dundal jàkk mooy ku gëm yàlla wa aqama salaa wa ata zaka wa lam yaxsa illa allah asa ulaika an yakunu min al muhtadin kon nag dundal jàkka ca tabax ga dundal jàkka ca setal ga dundal jàkka ca leeral ga dundal jàkka ca féexal ga waaye nag dundal jàkka ca jaamu ga nag ndax jàkk ga lu mu rafet rafet lu wante la dër ya euh, mën a upp rafet rafet te defuñu fa la tax jàkka jóg muy di fa jaamu yàlla di fa jàngale lislaam jàkka jooju ràpp na moom la borom ne wa man azlamu mimman manaa masajid allah an yuskara fi hasmuhu wa saa fi xarabiha nee na ki tere jàkka buñ sa mën rek nga tëj ku ne dafa bëgg a nga ne ko doo fi jàngale ku ne dafa bëgg a waare nga ne doo fi waare nee na yow yaa rappal jàkka kon nag jàkka noonu lañ ko dundale kon na mbokk yi euh, li mooy li xaj ci waxtu yi ci melokaan yi ñu doon tudd ci melokaan ku gëm yàlla nañ ci bàyyi xel bu baax ñaan suñu borom tabaraka wa taala yéenu ci am suñu borom yokkal nu ko saxalal nu ko li nu ci manqué la itam suñu borom tabaraka wa taala mottalu nu ko wa sallallahu wa sallama ala